wa iyaaya yow dong farhabuni lay jaamu wa gëm leen bi ma la nga xamante ni ca la nga xamante ni dégg nga ansaltu wàccee naa ko te ngeen gëm li ma wàccee te mooy alquran gëm leen li ma wàccee musaddiqan mbir moom ngeen nga xam ne alquran jooju musaddiqan dafay dëggal li ma maxakum li nekk fi yéen nee na leen yéen ñii fekkee jamono Seydina Muhammad dem leen ngeen liir tawreet bi Moussa amoon wala ngeen liir injil bi Isa amoon ngeen xool alquran bu ngeen ko xoolee li nekk ci alxuraan dafay gën a dëggal li ngeen yoroon yéen musaddiqan li ma maakum lépp day nekk tawfiix dafay dëppoo du am benn wuute waaye waaye wala takoonoo ngeen la bu leen nekk awwalal kaafiriina di ñu bokk ci ñi njëkk weddi ci xeet wi bu leen nekk na ngeen la bu leen bokk ci ñu njëkk weddi Muhammad wala takunu awwalal kaafirina bii waaye waaye bu leen ci yam wala tastaru bu leen jëndee mooy bu leen wattee bi aayaati samay aay yii bu leen ko jëndee sama nan yi qalilan gu néew maanaam bëgg daraja àdduna rek bu mu tax ba ngeen ñàkk gëm alquran ñàkk gëm muhammad ndax daraja ju ngeen am rek ne du ngeen topp ci gannaaw muhammad kanaa xamule ne ay ayyaamu nu daawilu fan yi dafay wuute ci àdduna fii rek boo amee jabar tey ci kii nga aye bu liggéey nga ayee ci kee fan dafay wute képp ku defee ne xéewal dafay sax ci benn barab yaa ngi nax sa bopp loolu bu amee rek kon mooy yàlla des na moo tax tey mbir mën na feeñ fii ëllëg mu feeñ fële moo tax loolu ñi ciy bàyyi xel bu baax bu njëkkoon bannu Israël rek ñoo doon nekk yeneen léegi dem na ba ñëw ci araab yi ñoom nag léegi ñu iñaan ne ñoom duñ ñëw topp araab yi yàlla na leen tee ngeen a matal kóllëre rek matal leen kóllëre ji waaw bu leen jëndee samay aaya njëg xam nga mooy lan mooy buñ daan liir tawreet bu ñu yeggee foo xamante ni tawreet bi dafay désinir melow Muhammad ñoom dañ koy effacé wala ñu teg ci seen loxo wala dañ koy tëb loolu mooy wala tasri bi ayatillahi samanan qalilan ba léegi am na am na ñoo xamante bu buñ doon firi alxuraan da ngay defee ne yow alxuraan ji ñuy firi ak ji ngay jàng nekkul benn buñ ci gisee intérêt buur dañ koy tëb wala ñu interpréter ko neneen te mbir mi demee noonu ñoom nag noonu lañ doon def yàlla ne leen wala tastari bi ayatillahi samanan qalilan sama mbir bu ko kenn jëndee ak njëg njëg gi ci man la nekk booy wax waxal lii dëgg rek waxal lii alquran rek jeex na bul ci yaakaar kenn damay wax ne nag alquran boo koy wax dina am ku nekk ci ruqam dana defe ne moom ngay wax même président dina defe ne moom ngay wax kilifa diina dina defe ne moom ngay wax kenn ku nekk mën na ciy gis boppam ndax waxu yàlla la waxu yàlla la dafay matale moo tax mu ne leen wala tastari bi ayatillahi samanan qalilan sama aaya yii bu leen ko jëndee njëg gu néew wa iyaaya man dong fa taquuni na ngeen ma ragal bu leen ragal kenn kenn bul ragal kenn ba tax ngay soppi aaya yàlla di ko firee noo ko warta firee wa iyaaya man dong fa taquuni na ngeen ma ragal borom bi nee na wala talbisoo ngeen bu leen jaxase alxaq dëgg bil baatili ci caaxaan bu leen boole dëgg ak fen wala talbisul xaqa bil baatili borom bi nee na wala taktumoo ngeen la bu leen nëbb alxaq dëgg bu ngeen gisee dëgg rek wax leen ko wala taktumul xaq fi ngeen gis melaw Muhammad ak lan lañ fa wax ci Muhammad wax ko wax ko boo gisee dëgg boo gisee dëgg rek wax ko jeex na waxal rek pare ci yow wax ji koy wax teewul mu nekk wala mu ñàkkaa nekk mais yow waxal rek wala taktumoona bu leen nëbb alxaq dëgg bu ngeen gisee dëgg na ngeen ko wax wa antum te yéen mbir moom xam ngeen ne wa antum yéen wa antum yéen taxlamuuna xam ngeen ne mbir moom mooy dëgg comme xam nga ne mooy dëgg rek wax ko wa aqimoo na ngeen taxawal assalaata julli yàlla nee na na ngeen taxawal julli wa aatu na ngeen joxe a azakata azaka na ngeen di joxe azaka warkau na ngeen di julli maha raakee na ànd ak jullikat yi ñu ne loolu mooy lan mooy julli mbooloo na ngeen di julli ànd ak ñiy julli warkau maha raakeen raakeen mooy jamaa kon loolu mooy julli mbooloo mooy na ngeen di julli waaye su ngeen ko mënee defi ca mbooloo ma mooy li nga xamante ni mooy li gën foo gis aqaamu salaat rek taxawal julli rek atu sakaat moo ciy topp léegi nag waaw dama leen di laaj na ndax dangeen di digal annaasu nit ñi bil birri ci mbaax yow yaa ngi diggal nit ñi mbaax ba pare watan saw na ngeen di fàtte anfusakum seen bopp nee na xoolal lii yéen a ngi digal nit ñi mbaax ba pare te yow li ngay digle defoo ko yaa ngi téye alxuraan di wax te yow li ngay digal nit ñi defoo ko loolu mooy xam-xamu sondeel yow mi nga xamante ni ñi ngi wax nga ñuy déglu yow yaa ciy jëriñ waaye ñun ñuy wax jëriñuwuñ ci nee na loolu mooy xam-xamu sondeel mooy yaa ngi niital nit ñi tey wàññeeku waaw moo tax mu ne ataamuruuna ndax da ngeen di digal annaasa nit ñi bil birri ci mbaax di digal nit ki gëmal yàlla toppal yàlla defal nangam te yow wattan saw na anfusakum te digaloo ko sa bopp wa antum te yéen tatluuna al kitaab yéen a ngi jàng téere bi yéen a ngi jàng tawreet xam ngeen ne melaw Muhammad ñëw na ci mooy yenent bi ñëw aaxiru samaan yéen a ngi taw jël tawreet di ko jàngal nit ñi te lu tax nanguwu leen a jàngal nit ñi pour ne melaw Muhammad mu ngi ci biir afala taqiluun waaye waay tee ngeen a am xel afala taqiluun tee ngeen am xel borom bi nee na wastahinu na ngeen sàkkoo dimbandikoo na ngeen sàkkoo dimbandikoo seen muñ maanaam seeni mbir bi sabrin ci muñ xam nga premier atu bi nit ki war a jël mooy muñ maanaam soxla boo ci jë boo boo boo amee soxla il faut nga patienté wu mooy muñ muñ dafa am solo dafay dimbale nit ki ci soxla waaye ŋar-ŋar léegi tey mu tey mu sotti tey mu sotti da ngay sonn rek mais du sotti moo tax borom bi nee na wastaino na ngeen sàkkoo dimbandikoo si seeni mbir bi sabrin ci muñ waaw muñ mooy lan mooy bul wax ne diw sàngam mi am na alal damay am alal forcément diw sàngam mi am na lii damay am lii forcément bu ko force na nga jël muñ dimbandikoo ko ba yàlla yeggale la fi nga jëm ndax ku jël ku jël yoon yoon ku ko jël bu daggul rek di nga yegg li olof di wax na xëcc bu daggul dikk rek mbaamu mu yendoo tey kon loolu la ñu yàlla di jàngal nit ki bul yàkkamti il faut nga ramper am foo jaar am foo jaar am foo jaar ba yegg boo yeggee nag ba téye ko di nga xam yow li nga téye lan la ndax ramper nga mais boo bëggee force rek da ngay sonn moo tax borom bi nee na wastainu na ngeen dimbandikoo seeni soxla ak seeni aajo àdduna bi sabrin ci muñ na ngeen di muñ muñ ci bokk na ci mooy nga discret maanaam lépp looy song nga bañ koo wax ba ñëpp dégg ko waaye am na ñoo xam ne projet bu ñu am balaa ñuy nopp adduna yëpp xam ko ku ko war a xam-xam ko ku ko warta xam-xam ko moo tax mu ne wastainoo na ngeen dimbandikoo bi sabrin ci muñ wa salawaatin ak julli na di julli waaw na di julli waaw di julli de na ngeen di dimbali koo muñ ak julli loolu dafa bokk ci li nga xamante ni dafay dimbale nit ki wa innaha naka moom julli googu ma mujj a wax sax la kabiratun lu diisa diise la lu jafee-jafe la waaw julli nekkul mouvement bi rek de jog siggi jog siggi jog siggi ah borom bi nee na julli jafe na waaw julli jafe na de léeg-léeg nga ne allahu akbar téléphone bi sonné nga may ko bët waaw téléphone bi sone nga may ko bët léeg-léeg nga ne allahu akbar bunt bi sone nga may ko nga may ko nopp waaw moo tax mu ne julli ak moo jafe waaw wa innaha naka moom julli la kabiratun lu diis a ngi noonu waaw lu diis a diis a ngi noonu borom bi nee na ah yombut de nga julli départ ba sëlmal sa xel mi lépp nekk ci yàlla waaw léeg leen nga julli ba rukon sa xel nekk ci lii xel mi nekk ci la léegi léeg am nañ dañu amoon suñ benn maam dañ ko daan rey ci lu bari bu demaan luuma bu ñëwee maanaam ni ngay xamee ne maanaam luuma ji dox na marché ba neex na mooy ci julli gi bu ñëwee day jël faatee neex jël saar wu neex nga xam ne kat kii tey bésam neex na waaye kon kon moom bés bu neex bi moo tax mu jullee noonu mais bu bu neexutoon du julli dangay gis koo xam ne nii bu jamono méttee mu commencé julli bu jamono neexee mu arrêté yooyu yëpp am na moo tax borom bi nee na wa innaha ay naka moom julli la kabiratun lu méttee ngi nii lu diis diis ngi nii waaw moom muñ a yem de waaw moom muñ a yem moom muñ a yem neexut de waaw moog muñ waaw moog muñ moog muñ ñoo waaw mais lépp pay moo ci nekk surtout muñ dafa am tim genn góor si góor pël la woon nag dafa yoroon ay nag mais bu rataan bu rattee war a jaay daf ci yokk ndox jaay bu rattee rek war a jaay yokk ndox benn bés yàlla ji taw bi yàlla ji tawee kër gi yëpp indone sàkket yi dem néeg yi daanu nag yi lab ci biir kenn ku nekk ñëw di ko di ko masawu ah waaye bàyyi diw kay bàyyi diw de yow ñu ngi lay masawu de yow de ku baax nga wax dëgg yàlla dëkk bi ku fi am meew yaa ko jaay mu xam boppam mu ne leen toq-toq ya ma daan def ca meew ma moom la yàlla dajale tey ba mu bëri mu may ma mu fayee ma ko ndox mi waaw mu ne toq-toq yam daan dajale moom la ko yàlla fayee nii moo tax bëri na nit lu ko dal. ñu defe ne sax nit moo ko ko fekk yàlla moo ko fayee loolu ndax àq baaxul moo tax doomu aadama lépp loo amut muñal bu la ci bëri pexe dugal bu la ci leneen dugal lu la ci dugal rek ëllëg mën na la koo récculoo moo tax borom bi nee na na ngeen di dimbandikoo ci seeni mbir bi sabrin ci muñ wa salawaatin ak julli waaye nag wa innahaa naka moom la kabiratun lu diis la ilaa ala qaasihun ndare ñi nga xamante ni dañoo miin topp yàlla ñi nga xamante ni dañoo dëkk ci topp yàlla moom julli du dara ci ñoom waaw ñu dëkk ci topp yàlla kooku du dara ci ñoom waaye ñi nga xamante ni événement rek mooy tax ñu topp yàlla am na ñoo xam ne événement rek mooy tax xew-xewu diina am na wut nañ kaala wut kurus weeru koor wii ñu nekk am na ñoo xam ne ci la ut kaala ut kurus ut si jaada bu jeexee boo leen ko laajee gisatuñ moo tax am na ñoo xamante ni maanaam xew rek mooy tax moo tax mu ne ila ala qaasiin ndare ñi nga xamante ni ñoom dëkk nañ ci topp yàlla waaye nag inna lazina naka gaa yi nga xam ne nii yesul noona wóolu nañ ne ñu ne ñaa muhammadu rasulullah abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay na be